alo dafa am ku ne ci ligne bi allo. alo allo waaw. Sonko namu naa Sonko namu naa Sonko Sonko Sonko namu naa la ayé Sonko namu naa la. sonko namunala sonko sonko sonko namunala aye iyawo sonko senke president anamo mengi sebi sebi sebi sebi sebi kota aye iyawo Sonko bëri doole l'absent le plus présent l'absent l'absent l'absent le plus présent aye yow Sonko namu naa la borom ñaari galon yi yéesa si de kër góor gi kenn di yow ci micro Allô allô. allô oui allô. allô monsieur le président. oui allô oui. Sall Ngaara yow bu la dara metti gis na ñooñu seen xol a jeex yow bu la dara metti yow da nga fi def lu ne weng ñëpp teg ci seen bët nag. jërëjëf ñooñu seen xol dafa jeex. jërëjëf madame bu ànd ak da nga ànd ak ki nga gis mais ku ñu gisul kenn du ànd ak moom yow yow la ñu gis ñun. jërëjëf yow la ñu gis yaa fi def lu ne weng lu la dara la dara metti li nga liggéey lépp ñëpp teg nañ ci seen bët. merci ñooñu nag a jeex ñoom. dañ leen di comprendre seen xol moo si nga ànd ak nga xam dafa wér. fan ngay wootee. man maa ngi wootee fii euh, am nga pale mu ne. am naa lépp monsieur le président lépp